Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Euh, la parole est à notre collègue euh, Sornaba numéro 2, suivi de Bakari Bine Kamara. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Assalamu alaikum maa ngi nuyu kenn ku nek ci turam ak ci santam di nuyu monsieur le ministre du budget et des finances di nuyu sa collaborateur yi nga xamanteni ci ñom nga andal di wax rek ne li ñëpp wax duñ ci reveniraat ñu ngi leen ñaanal li ngeen di liggéey yalla barkel ko benen bi on voit bien que vous faites des efforts vous et vos collaborateurs notamment ceux des impôts et domaines de la douane et des autres euh, secteurs yi nga xam ñoo nekk ci ministère bi pour mëna recouvrer ay recettes pour me permettre à la population sénégalaise ñu mën a euh, def li nga xamante si moom mooy seeni besoins yi nga xam en matière de l'école, la en matière de nan, la en matière de d'électrification la ak yeneen ak yeneen. monsieur le ministre may wax rek non loolu laa leen waxal parce que ñoom ils transcendent les régimes régime bu ñëw da leen fii te comme président Macky def na 12 ans ba pare te day dem incha rabbi keneen kuy ñëw di Aline Mamadou Dia bu ñëwee ànd ak ñoom bu ko defee ñu liggéey dëkk bi monsieur le ministre des finances et du budget par rapport ak le budget dañu wax ne taux de croissance euh, taux de croissance bi nga xam ne moom ngeen projeté à 9,2 pour cent xëy na ñenn ñi wax nañ ci taux bi ndax di ngeen ko atteindre waaw wala déet mais ci biir atteindre boobu ngeen ko war a atteindre ci recette yi da ngeen a exploitation du pétrole bi da ngeen ko wax ne dernière quinzaine wala boog dernier trimestre bi lay doon au mois de juillet loolu kon ci prévision yi la bokk maintenant comme risque la te mën nañu dem ba soit ñu exploiter wala ñu bañ a exploiter ci yan facteur ngeen di basé wu pour mën booster li nga xamante ne si taux de croissance boobu. beneen bi monsieur le ministre j'ai envie de vous poser une question c'est-à-dire qui paye l'impôt au Sénégal.

wax ngeen ko ci document bi ne ngeen ne di ngeen ko renforcer ñuy wax foofu rek il faut que ñu gën ko mën a renforcer pour permettre suñu finance publique yi ñu mën a transparente parce que dafa am ñoo xamante ne ci ci enrichissement illicite ci fraude ci la ñuy dox ba recette yi nga xamante ne si moom la ñu war a am en fait pour mën a def li nga xamante ne si moom mooy résoudre les besoins des sénégalais dafay des monsieur le ministre par rapport ak euh, ñaari dëkk ngeer ngeer malal ak euh, dëkk bu ñu naan Yaral Thiam Yaral Thiam problème mu hôpital la ñu am émigré yi cotisé nañ ba am ko mais médecin bu ñu leen affecté pour mu ñëw foofu mooy doon problème Nguer Malal problème mu ndox la ñu am forage yi li mu war a marché dafa des bu ko defee ñu mën leen jàppale ñu def li ñu war a def président Amadou Ba nag yërëm nañ ko parce que ñi ko war a défendre boobu ba léegi président Macky Sall président Macky Sall la ñuy wax dimbale leen ko wàcc sur comme ça mu mën a am résultat <laughs> soxna merci Euh, la parole est à notre collègue Bakary Binekama, suivi de